الله أكبر الله أكبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بوكي نجي سانت بروم تبارك وتعالى دنيا نيان جمك خيولك مجي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 sunu bind bi nga xam ne moom lañ tàmbali woon ci téere bii di thalathatul usul wa adillatuha te imam buñ naan muhammad ibnu abdilwahab attamimi rahimahullahu taala taalif ko suñu bind bi weesu ñi ngi e, taxawoon ci fi nga xam ne fi la muallif bi doon waxee ne buñ la laajee kuy sa boroom na nga wax ne yàlla mooy sama boroom moom mi nga xam ne mooy defar samay mbir di defar mbiri mboolem ñi nga xamante ne ñooy mbindeef yi bokk cosaan te kooku mooy ki nga xamante ne moom laay jaamu ndax moom moo ko yeyoo ndax moom dong mooy def jëf yi tax ñu mu yeyoo ñu jaamu ko moom rek moo wéet ci ay jëfam yi nga xamante ne mooy moom gi mu moom jaam ñi ak defar gi muy defar ci seeni mbir ak it nekk gu mu nekk seenub sang te it moo leen bind moo yore seeni mbir kon comme que moo wéet ci yooyu jëf moom dong kon moo yeyoo ñu jaam ko ñu waxoon it ne laaye bi firndeel loolu mooy alhamdulilahi rabilalamin te laaye boobu di firndeel ni jaam bi war naa xam ne yàlla ko am la war naa xam it ne jëf yi nga xam ne moo koy def moom dong moo ko man ci loolu kon ñetteel bi moom dong moo yeyoo ñu jaamu ko te it am na ay tur yu rafet yu làmboo ay melokaan yu kawe am yeneen melokaan yu mat yu kawe yoo xamante ne moom dong moo ko yeyoo moom dong moo ko am kenn nuruwu ko ci yow yu melokaan te melokaan yooyu cig mataayam moo tax kon moom dong moo yeyoo ñu jaamu ko ndax ku amul yooyu melokaan yu mat yeyoo ñu jaamu la kon loolu mooy bind bi nga xamante ne moom lañu weesu kon yàlla mooy sunu boroom léegi nag nit ki comme que dañoo sàkku ci moom mu xam yàlla ci ñeenti mbir yi nga xamante ne moom lañ tuddoon ci bind bi weesu mooy nit ki xam amuk yàlla nit ki xam ne yàlla am na jëf yoo xam ne moom dong moo koy def moom dong moo ko man ñetteel bi mooy moom dong moo yeyoo jaamu ñeenteel bi mooy am na ay tur yu rafet ak ay melokaan yu kawe nit ki war naa xam yàlla ci ñeent yooyu wala boog mën na war naa xam ñeent yooyu ci borom bi tabaraka wa taala léegi nag nit ki naka lay xame loolu nit ki naka lay xamé yàlla loolu moy li nga xamné mom la borom téré bi bëgg jàngale tay moy doomu adama bi nan lay xamé yàlla motax tax mu ne fa idha qila laka buñ la waxé ni la bima arafta rabbak yow ci lan nga xame sa borom nan nga xame yàlla lan mo la xamal yàlla buñ la ko laajee fa qul nanga tontu ne bi aayaatihi man de ci laayay sunu boroom yi ay kaawu ak laaya yi mu wàccee ci alxuraan ci yonante bi sallallahu alayhi wa ci laa ko xamee wa maxluqaatihi ak ay mbindeefam mbindeef yu mag yi mbind yi nga xam ne keneen ku dul moom bind ko te keneen ku dul moom mënoo koo bind kon ci mbindeef yooyu laa xamee yàlla naka laa xame yàlla ci mbindeef yi mooy ma xam ne ki bind yu mag yii te kenn jàppalewu ko ci te kenn mënu ko kooku dong moo yeyoo jaam kon yàlla nii lañ koy xame bi aayaatihi moo ci jiitu mooy laaya sunu boroom yi mooy ay kawteefam ak laaya yi mu wàccee ci alxuraan laaya sunu boroom ñaari façon la bi ci njëkk mooy al ayaatu sharciya mooy laaya yi nga xam ne moom la yàlla wàccee ci yonante yi ngir di leen xamal kan mooy yàlla waaye di leen xamal àttey yàlla yi ñu xamal ko xeet yi kon laaya yi wàcc yàlla wàccee ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam muy alquraanul karim laaya yooyu mooy xamle yàlla mooy kan ku bëgg xam yàlla faaw nga dellu ci laaya yooyu moo tax mu ne buñ la laajee ne la ci lan nga xame sa boroom nan nga xame yàlla fa qul nee na na nga wax ne bi ayatihi ci laayay sunu boroom yi wax naa leen ne nag laaya ñaari façon la bi ci jiitu moom mooy al ayatu sharciya mooy laaya yi nga xam ne mooy alquran ji yàlla wàccee ci yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu le yàlla mooy kan waaye ngir alxuraan jiit xamle àtte yàlla yi mooy lan ngir nit ñi mën cee tënku ngir mu xamle yàlla mooy kan ngir ñu xam ki ñuy jaamu mooy kan ndax dañ koo war a xam comme ni ni nga xam ne noonu la ko boroom téere bi tabaxee ci ñetti principe yooyu ñu xam ne yàlla ku am la ñu xam ne yàlla am na jëf yoo xam ne moom rek moo koy jëf te yooyu yëpp leer na ci alxuraan mooy boroom jaam yi mooy bind aduna bi yep ci loxom la nek moy doxal lepp mooy ray mooy dekkal kon lolu yoyu ak yu melne mom yi nga xamne borom bi tabaraka wa taala mo koy def war nañ ko xam ci mom war nañ ñu xamit ay melokanam comme ni melokan yi ñewé ci alquran ak njangalam yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam ñu xamne ne du nelaw toujours mi ngi fuglu xam li nit ñi ne tek seen ci ñoom di leen gis di dégg li ñuy wax di xam ci li ñu ne di jéggale ñiy juum di yërëm ñi ñu war a yërëm di mbugal ñi ñu war a mbugal am kàttanam dara tëwu ko ku tar mbugal la ku bari yërmande la mooy borom lépp moo moom lépp boroom bi tabaraka wa taala ku dënniir lu la manam nit du def bakkar rek mu dal di koy mbugal ci sasa waaye ak lewetaayam ak dënniir lom dana tax mu may la temps touba te delu ci mom et cetera ay melokan yu bari yu ne ci alquran yo xamne moy mooy xamle yalla moy kan kon ku bëgg xam yalla faaw nga delu ci xaj bu njëkk bobu ci laaya yoy muy al ayatu shar'iyya ngir nga mën xam yalla moy kan waaye ci ngay xamee ne yàlla doo nga yeyo jaamu motax muy digal nit ñi naan leen jaamu leen yalla rek mi nga xam ne moo leen bind moo leen wërsëgal et cetera kon ki nga xam ne moo wéet ci ay jëfam ci bind ak moom gi moom jaam ñi ak yor gi mu yor seeni mbir ki wéet ci loolu moom dong moo war a wéet ci jaamu yàlla yi nga xamante ne moom lay ko jaam yi di defal kenn warut a jaamu keneen ku dul kooku waaye nga xam ay melokaani nit kon loolu yooyu nga xam ne warees na koo xam ci yàlla boko beugé xam foy delu al ayatu shar'iyya mo ci jitu motax mune bi ayatihi ci ay layam laaya lolu mo ci jitu moy al shar'iyya ñaarelu ñaareelu moy al ayatu al al ayatu al kawniyya moy kawte fi sunu borom yi ak fam yu mag yu kawe yi nga xamantene kenn mënul bind mbindeef yu mel noonu mom rek moko man te rek moko def boo xoolee asamaan xool suuf xool jant bi xool weer wi xool biddi wi xool géej gi xool jéeri ji nga xool jaww ji xool guddi xool bëccëg mbindeef yu mag yooyu nga xamante ne ku juddu fi nga ko fekk kuy dem fi nga koy bàyyee yàlla ko bind kon yàlla moomu ko bind kooku de moom dong moo yeyoo jaamu kenn munta wax ne diw sàngam moo bind asamaan wala diw sàngam moo bind suuf wala diw sàngam moo bind jant bi wala diw sàngam moo bind weer wi wala diw sàngam mën naa téye jant bi ba dootu dem wala diw sàngam mën naa téye weer wi ba dootu dem wala diw sàngam mën naa dénd suuf si nit ñi nit ñi dëkk dëkke ko wala diw sàngam mën naa tax ba guddi dootu am wala bëccëg dootu am yooyu mbindeefi sunu boroom la di dox comme ni ko ko yàlla sante mbindeef yooyu bu ci nit xalaatee ne ki bind lii waaw mooy kan kooku mooy yàlla kon day kooku dong moo yeyoo jaamu kon képp koy defal benn xeetu jaamu yàlla di ko ñaan wala nga koy yaakaar wala ngay wax wékk say mbir ci moom wala nga jël say mbir jox ko ko kooku war naa fekk ne mën naa bind asamaan wala mu mën a bind suuf wala mu mën a bind jant bi wala weer wi wala guddeeg bëccëg wala mu man caa def maanaam mën caa dugal loxoom déedéet comme que yooyu yépp moom mënu ko kon waroo koo defal benn xeetu jaamu yàlla yàlla mi bind yooyu kon moom dong la ñu war a jaamu comme ni ko nga xam ne noonu la ko alxaafid ibnu kathir waxee kon al ayatul kawniya mooy kaawtee fi sunu borom yi lu mel ne jant bi weer wi guddeeg bëccëg yooyu bu ko nit xoolee xalaat ci ki ko bind ah kooku mooy ki nga xamante ne moo yeyoo jaamu kon moo tax mu ne buñ la laajee ne la ci nan nga xamee yàlla mooy neel ci laayam yi moo xam al ayaatu sharciya la mooy laaye yàlla wàcce ci alquran muy xam la yàlla mooy kan wala al ayaatul mooy kaawtee fi sunu boroom yi mbindeefam yi nga xam ne boo ci xalaatee xam ne ki ko bind moom rek mooy yàlla moo yeyoo jaamu muy guddeeg bëccëg ak gent beeg weer wi wa maxluqaatihi ak mbindeefam yu mag yi lu mel ne asamaan si lu mel ne suuf lu mel ne xeer yi et cetera yooyu mbindeef yu mag yoo xam ne dangay gis ne toujours mi ngi sax fi mu sax ki ko bind mooy kan mooy yàlla kon kooku mooy yàlla kooku rek mooy yaayoo jaamu te it boo ko xoolee mbindeef yooyu ci ngay mën a xamee borom bi tabaraka wa taala ki bind lii daal kon ku am kàttan la waaye ku am xam-xam la waaye lii lépp ci coobareem la ame waaye kon ndey kooku ku yeyoo ñu jaamu ko la ku deful loolu nag kenn waru laa jaam kon nit ki ci noonu lay xamee borom bi tabaraka wa taala kon nit juum na juumte lu rëy wala boog am na ñuy juum juumte lu rëy ñoo xamante ne dañuy jàpp ne nit ki xam yàlla mooy ñu ñëw jox la ay mbir yoo xam ne danga koy jàng ci saw làmmiñ yoo xam ne doo xam lu muy firi te doo xam ci wan làkk la sa wàcc sax nga wéet ci sam néeg ñu ne la doo julli doo génn nga toog di ko wax di ko baamu ñu ne la boo ko defee dana am yooyu gis boo demee ba tàggook sa sago ñu ne ah kooku xam na yàlla ah mbokk yi nii di kenn du ko xam yàlla bu dee nii la ñuy xamee yàlla xanaa kon saxaaba yi doon dund ak yonent bi sallallahu alayhi wa xamuñu woon yàlla ndax lii de defuñu ko woon xanaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi gën a xam yàlla ñépp daan ñu jàngal nu ñuy xam yàlla kon moom xamul woon yàlla ndax moom de nii daawu ko def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu xam ci boroomam yàllaa ko wàccee ci alquran xamal ko ko al ayatu shar'iyya mooy laaye yàlla wàccee ci moom di ko xamal yàlla mooy kan wala mu toog di xalaat ci mbindee fi sunu boroom yi xam ne ki bind yii moom dong moo yooyo jaamu ngëm yàlla am gën a mat ci yàlla xam-xamam ci yalla gëna yok mu xam ne yalla mi bind mbindeef yu mag yi koko de kon ku mag la ku reey la ku am xam-xam la ku am kàttan la waaye moom dong moo yeyoo jaam kon nii la ñuy xame yàlla waaye toog ne bala nga xam yàlla faaw nga dem ci diw mu jox la ay baat yoo xam ne doo xam lu muy firi te kenn xamul ci won làkk la ñu la wéetal di ko jàng jamono ba nga koy jàng man ngaa bañ a julli julli mën naa ñëw romb la doo julli doo def dara lu dul ne ca loola di ko wax fekk yaa ngi wuuteeg atte yi yàlla tëral mooy yaa ngi bàyyi julli ca jamono booba nga dem sax ba tàggoog sa sago tàggoog sa xel mi nga xam ne moom la la sunu boroom joxoon nga ni da ngay gis ay mbir yoo xam ne mbir yooye moo lay jommal ndax loolu yépp ci liggéeyu seytaane la ndax seytaane moom boo toogee di ko woo bu la dana la won ay mbir yooyu mu lay wan nag benn sa danga ca tàggoog sa sago ñaareel bi sa pas-pas ca lay yàqoo ngay wax lo xamne ken xamuko nga dem ba buñ la ne nga tepp ne xamna yàlla buñ la ana yàlla nga feug sa dem ne man ma yàlla boba sànku nga shaytané loolu la bëggoon ci yow yow shaytané fëkk na la kon ku mel nonu loolu liggéeyu shaytané la te xam lé nonu yàlla ñoñu shaytané lañuy liggéeyal te it lañuy xam loola liggéeyu shaytané la ak gemmi shaytané waye du yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn mësu koo laaj ci borom bi tabaraka wa taala mu fëggub dënnam ne man maay yàlla déedéet moom ci boppam dana wax ne man jaamu yàlla la kon ku ñu wax ku wax ne xam nga yàlla ñu ne la ana yàlla nga ni yow yaa yàlla nga ne ko yow nag mu ne man maa yàlla nga ko télé bi mu ne tele bi yàlla la bâtiment bi mu ne yàlla la lu ñu xool mu ne yàlla la kon kooka seytaane fëkk na ko kooka moom pas-pasu lislaamam seytaane yóbbu na ko kon kenn du xamee noonu yàlla te ku ñu gis mu mel noonu xamal ne kooku seytaane jaar ak moom fa mu jaar ak moom ba mu tàggoog sa goom kon ku bëgg a xam yàlla ci lii nii nga koy xame fa qul bi aayaatihi waxal ne ci man ci laayay sunu boroom yi yi mu wàccee ci yonent bi muy alxuraan ci lay xamee yàlla naka noonu laaya yi nga xamante ne mooy mbindeefam ay kawteefam yu màgg yi muy ku mel ne guddi ak bëccëg ak gent beeg weer wi mbindeef yooyu ki ko bind kooku mooy yàlla te moom moo yeyoo jaamu wala mbi wa maxluqaatihi wala mbindeefi sunu boroom yi comme lu mel ne asamaan ak suuf kon ci noonu lañuy ñuy ki di xamee boroom bi tabaraka wa mu xam ne ki bind loolu moom dong moo yeyoo jaamu mooy yàlla ginnaaw gi mu lay leeral ci kawteefi sunu boroom yi ak mbindeefam yi mu la koy leeral mu ne wa min ayatihi bokk na ci kawteefi sunu borom fii nag al ayatul kawniya la ci jublu mooy la kawteefi sunu borom mooy mbindeefam yu mag yi nga xam ne day soppiku temps en temps day day soppeeku mu ne bokk na ci kawteefi sunu borom yooyu al laylu guddi gi wannahaaru ak bëccëg bi guddi gi day ñëw am quelques heures mu jóge fa bëccëg ñëw kooku ci kawteefi sunu borom yi la bokk kan mooy ki nga xamante ne mooy jël guddi dugal ko ci bëccëg jël bëccëg dugal ko ci guddi mooy yàlla wa shamsu wal qamar bokk na ci laayay sunu boroom yi nga xam ne mooy ay kawteefam yi nga xam ne day soppiku ashamsu mooy jant bi wal qamaru ak weer wi jant bi ci suba gi mu fenk mel ne lu xaw a xonq ba yàgg mu weex ba yàgg mu tàng mu féete woon la penku ba yàgg mu tiim la ba yàgg mu féete la sow ba yàgg mu xonq ba yàgg dutoo ko gisati weer wi naka noonu muy sew ruuj bu weer wi doog a génn ba yàgg muy rëy ba yàgg muy rëy am genn wàll ba yàgg mu mat ba yàgg mu gën a rëy ba yàgg muy wàññeeku di wàññeekuwaat ba toll na mu toll woon dem kaawteef yooyu te loolu nga xam ne at bis bu ne ak weer wu ne noonu lay demee kan moo bind yooyu ak lii kan moo koy doxal ci organisation bu mel noonu kooku mooy yàlla kon ci mbindeef yooyu ci ngay xamee ne borom bi tabaraka wa taala moom dong moo yooyoo jaamu ndax moom rek mooy def jëf jooju te moom rek moo bind mbindeef yooyu kenn dimbaliwu ko ci te kenn defu ko wàllif moom kon loolu ci kawteefi sunu borom yi la bokk wa mu ne wa min maxluqaatihi bokk na ci mbindeefi sunu borom yi nga xam ne mbindeef yu sax la yoo xam ne toujours yaa ngi teg sa bët mu mel ni meloon du soppiku mu ne asamawaatu sabu mooy asamaan i juróom-ñaar asamaan si bañu ku ci ne ci ñun ba mu juddoo ba léegi noonu lay téene di ko xool mu féete ko kaw du ci gis xotteeku xotteeku du ci gis ak coppiku mu tiim ko rek muy mbaar moo xamante ne day xool ba fa bëtam yam ñu dénd ko mu tiim ko wa man fiihinna ak lépp loo xam ne mi ngi ci biir asamaan comme malaaka yi ak albaytul maamuur ak mbindeef yi nga xam ne moom la ci moom la yàlla bind ñu ne fa di fa dund yépp kan moo leen bind yàlla wal araduuna sabu ak juróom-ñaari suuf juróom-ñaari suuf ndax asamaan kat juróom-ñaar la suufit juróom-ñaar la allahu alladi xalaqa sabaa samawaat yàlla wax na ci alxuraan suratu talaax ne yàlla mooy ki nga xam ne moo bind juróom-ñaari asamaan wa min al ardi mithlahun yàlla nee na bind na it ci suuf lu tolloog juróom-ñaari asamaan maanaam juróom-ñaari suuf moo tax fii mu ne wala arduuna saba ak juróom-ñaari suuf yi wa man fiihinna ak li nekk ci biir suuf ci ay mbindeef li yàlla bind ci suuf ci ay mbindeef yoo xam ne lenn yenn yi mbindeef yuy dund la yeneen yi mbindeef la yoo xam ne doomu adama daf cee mën a jariñoo xeer yi nga xam ne moo téye suuf si ci biir ak li nekk ci biir suuf si ci ay mbell pétrole bi or bi phosphate bi fer bi ak leneen ak leneen yi ne ci biir suuf yépp ci ay mbindeef yu dund ak mbindeef yuñ mën a jariñoo yépp yàllaa ko bind wama baynahuma ak li nekk ci diggante asamaan ak suuf comme biddiw yi jant bi weer wi ak mbindeef yi nga xamante ne moom la yàlla def ci diggante bi yépp ñuy dund te lépp yàlla di ko doxal yooyu mbindeef yépp ku ko bind yàlla kan moo ko ci jàppale kenn wéet na ca kon ki wéet ci mbindeef yooyu bind ko te kenn du wax ne maa maa ko def wala boroom xam-xam sàngam moo ko découvrir moo ko def ñépp dañ ko fee fekk ku ñëw fekk ko fi kuy dem bàyyi ko fi mbindeef yooyu yàllaa ko bind kon yàlla mi ci wéet bind ko moom dong te keneen ku dul ko kooku dong moo yeyoo jaamu kooku mooy yàlla kon bindeef yooyu ci la nit ki di xamee borom bi tabaraka wa taala kon comme niñ ko waxee kon bi mu ne laa ci nan nga xamee sa boroom nga ne ko kon bu boobaa na nga tontu ne ko bi aayaatihi ci laaya sunu borom yi mooy laaya yi ñu wàccee ci yonent bi benn ñaareel bi mooy laaya yi nga xamante ne mooy mbindeefam yu yi nga xam ne day soppiku comme ne guddeeg bëccëg ak jant beeg weer wi ci noonu ngay xamee yàlla ak mbindeefam yu sax yi muy comme asamaan yi juróom-ñaar ak suuf yi juróom-ñaar ak la ca biir ak la ca diggante ba kon nii lañuy xamee yàlla waaye comme ni ko gaa gaañi di xamee ñu ne lépp yàlla la dem nga ne bu ma xamee yàlla ne man maa xam yàlla te boo xamee yàlla ñu ne ah yow ko jëratul ngay jaamu yàlla ndax léegi xam nga yàlla déedéet xanaa kon yonent bi xamul yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gënoon a xam te yàlla dana ko waabud rabbaka xatta yatiyaka alyaqiin jaamul sa boroom ba ba dee di ñëw ñoom ba ñëwee daan yaqiin googu kat moom mooy nit ki xam boroomam dem ba egg ci kóolute xam sa boroom egg ci kóolute ne xam naa yàlla bu boobaa jaamu yàlla yi wàcc na la loolu xanaa du làkku arab de boroom bi tabaraka wa bi muy nettali ci alxuraan ëllëg yowmal xiyaam ñu dugg sawara bu ñu leen di laaj lu leen dugal sawara dañ naan lan qaalu lam naku min al musallin ñun daawuñu julli walam naku nutcimul miskin daawuñu leyal miskin wa kunna naxuudu ma alxaaidin ñun de dañ daan xuus rek di wax lu suñu yoon newul ànd ak ña koy def wa kunna nukadibu bi yowmi diin dañoo weddi woon ne yowmal qiyaam dana taxaw xatta ataana al yaqin ba dee ñëw xanaa kon ñooñu kon ñu dañoo waroon a mucc kon dem dugg àjjana bu dee yaqiin martaba la bu nit di yegg ba dootu jaamu yàlla kon ñu dugg sawara àjjana dañoo waroon a dugg kon yàlla li mu wax du noonu kon ñooñu li ñuy wax ay caaxaan kon yaqiin du firi ne ab martaba la boo xam ne bu ci nit eggee dootu jaamu yàlla waaye day dee lay firi ci ñaari laaya yooyu ma tudd yépp te alxuraan laaya yi ñooy firante ci seen biir kon lii mooy xam-xam lii mooy li wér lii mooy dëgg du tax mu fëgg dënnam walla lu mu gis ne loola yàlla la kon ana ana ki bind ak ana kan ki ñu bind ndax bu fekkente ne dem nga ba ni xam yàlla mooy nit ki dem ba dootu gis leneen lu dul yàlla te it lu dul yàlla amul maanaam lépp lu am rek yàlla la portable bi yàlla la mbàjj mi yàlla la bant bi yàlla la xar mi yàlla la xaj bi yàlla la wal iyaadu billah yàlla kawe na sori na set na ci liñ ko askaneel parce que loolu bu fekkente ne nit dem na ba wax loolu saxal ko moo di ne léegi kon amatul mbindeef amatul ki bind maanaam amatul différence entre maanaam yàlla mi bind ak mbindeef mi ñu bind ndax lépp yàlla la ci gis-gisu kooku kon loolu ak réer gu metti gu sori la kon yàlla kenn du ko xamee noonu kon loolu liggéeyu seytaane la moom mi nga xamante ne moo bëgg a réeral ñi nga xamante ne ñooy topp seen bakkan ak di topp seytaane yal nañ ci yàlla musal kon nii la ñuy xamee yàlla mbokki jullit yi mooy laayay sunu boroom yi muy alquran yi yàlla wàcce ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak kaawteefam yi mooy mbindeefam yi nga xam ne moo leen bind lu mel ne jant beeg weer wi ak uh, guddeeg bëccëg ak mbindeefi sunu boroom yu sax yi nga xamante ne du soppiku mooy lu mel ne asamaani juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar ak la nekk ca seen biir ak la nekk ca seen diggante lan mooy firnde manees na cee xamee borom bi tabaraka wa taala yàlla nee na la xalqu samaawaati wal ardi akbaru min xalqi nnaas yàlla nee na bind asamaan ak suuf moo gën a rëy moo gën a jafe bind nit ñi ndax asamaan ak suuf ñoo gën a rëy ñoo ëpp doole mbindeef yi kon bind leen moo gën a jafe moo gën a màgg bind bind ñi nga xamante ne ñooy nit ñi kon yàlla mi bind asaman ak suuf kon yéen gëm len ni mo len bind ndax bind asaman ak suuf gëna jafe te nak bu fekkente ne yàlla bind asaman ak suuf mi gëna jafe bind len yéen ñi gëna yomb kon xam len ni yàlla mi len bind bind asaman ak suuf mom do nguma yooyoo jaam bu ko defé ngeen xam ci yàlla ngeen xamé ci yàlla ci bind gi mu bind asaman ak suuf wa qawluhu taala naka wa waxi borom bi tabaaraku taala jimi wax naan wa min ayaatihi al laylu wannahaar bokku na ci kaawteefi sunu borom yi moo tax fii yàlla subhanahu wa taala toujours li tax mu allif bi teqale ne bi aayaatihi wa maxluqaatihi ndax laayay sunu borom yi nga xam ne ñooy ay kaawteefam lu mel ne guddi ak bëccëg ak jant beeg weer wi ay mbindeef lañ waaye aaya la leen tuddee la plupart ci alxuraan yàlla buy tudd guddeeg bëccëg wala jant beeg wala boog jant beeg weer wi aaya lay tudd mooy kaawteef ndax day soppiku ndax jant bi day fenk dem sowi weer wi naka noonu guddi day ñëw gud bëccëg ñëw topp ca bëccëg day dem guddi ñëw et cetera soppiku ko muy soppiku moo tax yàlla di koy aaya ndax aaya ci baatu arab mooy loo xamante ne dafay soppeeku mooy loo xamante ne dafay soppeeku euh, naka noonu buy tudd asamaan ak suuf toujours bind lay jëfandikoo moo tax gis nga bi muy wax mu ne la xalqu samawati wal ardi akbaru min xalqi nnaas waaye buy tudd jant beeg weer yi bi mu koy tudd mu ne wa min ayaatihi llaylu wannahaaru walchamsu walqamar ma ànd ak loolu nag ay mbindeef lañ teewul ay mbindeef lañ waaye da leen di tudde ay laaya moo tax sànq bi ñuy teqale laayee ñu ne laayee ñaari façon la laaye yoo xam ne yàlla da ko wàccee ci yonent bi yooyu laaye moom du ay mbindeef yooyu laaye du mbindeef alxuraan la mooy waxi yàlla ak laaye yoo xamante ne ay mbindeef la waaye dañuy faral di soppiku mooy comme jant bi ak weer wi comme guddeeg bëccëg et cetera waaye nag teewul ñu nekk ay mbindeef moo tax ci laaye bi mu ne wa qawluhu taala yàlla nee na wa min ayaatihi llaylu wan nahaar bokk na ci laayay sunu boroom kaawteefam yi nga xamante ne moo leen dogal moo leen bind al laylu wan nahaar mooy guddeeg bëccëg wa shamsu wal qamar ak jant beeg weer wi yàllaa leen bind comme que nag ñooñu ay laaye yoo xamante ne màndarga la yuy wane kattanu sunu boroom ndax aaya ci arab ci làkku arab mi ngi firi al alaama mooy màndarga màndarga boo xamante ne day soppiku màndarga boo xamante ne day soppiku soppiku gu mooy lan mooy comme guddeeg bëccëg guddi gi day ñëw bëccëg bi ñëw topp ca mu soppeeku jant bi day fenk di so weer wi naka noonu léegi nag comme que yàlla subhanahu wa taala def na leen ay kaawteef ngeen gis ne mi ngi soppiku muy ay mbindeef yu màgg bu leen leen jaamu waaye jaamu leen ki leen bind moo tax mu ne laa tasjudu li shamsi wala lil qamar bu leen sujjootal jant bi bu leen sujjootal weer wi waaye nu ngeen war a def mooy da ngeen a war a xame ci jant beeg weer wi dangeen cee war a xamee yàlla mi leen bind ñoom bu ko defee ngeen sujjootal yàlla moo tax yàlla ne wasjudu lillahi alladi xalaqahunna waaye na ngeen sujjootal yàlla mi nga xamante ne moo leen bind moo bind jant beeg weer wi moo bind guddeeg bëccëg in kuntum iyaahu taabudun su fekkente ne yàlla rek ngeen di jaamu moom ngeen war a sujootal moom mi nga xamante ne moo bind jant beek weer wi kon jant beeg weer wi ay mbindeef lañ ay kaawteefi sunu boroom lañ ngeen man cee xame yàlla waaye duñu yàlla de bu leen leen sujootal waaye sujootal leen yàlla mi leen bind ndax yàlla mi leen bind moom dong moo yooyu jaamu wa qawluhu taala yàlla subhanahu wa taala it mi ngi wax ba léegi pour wane ne asamaan ak suuf toujours bu leen alxuraan di tudd baatu bind lay jëfandikoo waaye du jëfandikoo baatu laaya moo tax mu ne inna rabbakum allahu alladi xalaqa alsamawati wal ard gis nga moo bind asamaan ak suuf waaye de néewul min ayaatihi euh, alsamawati wal ard comme ni mu ko waxee ci allaylu wan nahaar nga gis ne kon mu allif bi ni mu teqalee ayaatihi wa maxluqaatihi maanaam laayay suñu boroom yi ak mbindeef yi daf cee toppandoo ni alxuraan di waxe daf ci toppandoo ni alquran di waxe alquran buy wax ci guddeeg bëccëg ak jant beeg weer wi aya lay jefaniko batu aya waye buy wax ci asaman ak suuf batu khalq moy batu bind lay jefaniko andak ne yep ay binde fi borom bi tabaaraku taala lañ waye ye dañuy soppiku muy layat yi dañuy soppiku guddeeg bëccëg day soppiku jant beeg weer wi day fenk di so waye yi moy asaman ak suuf dafa sax ndax batu khalq ci arab ci bopam manam at taqdir la moy lo xamantene borom bi tabaraka wa da ko dogal bindu ko moy lu sax ci wenn melo wo xamantene limi soppi ku bari wut ndegam dana ko def limi soppi ku bari bariwul nga gis ne kon lolu moy ciosan ci batu arab bi teyit it moy ni alquran tam diko waxe motax mune inna rabbakum sen borom day moy allah moy yàlla mi ñi jaamu الذي من خمنتني خلق السماوات والأرض مو بند أسمانك سوف في ستة أيام تجروم بن نفن ثم استوى على العرش مرام بتبارك وتعالى دادي تيم عرش فيتك قو ثم استوى على العرش موي مرام بتبارك وتعالى دفا تيم عرش تكو نخ عرش موي من ديفو يالا بي غنى مغ غنى ري تي من ديفي تيت مو فيتك قو مبولم بن ديفي يالا بند عرش لين فيتك قو yàlla nag daal di arash féete ko kaw kon yàlla amul dara lu ko wër ci ay mbindeefam borom bi tabaraka wa taala moo tiim mboolem mbindeef yëpp ndax arash mi tiim mbindeef yalla yàllaa ko tiim ca kaw kon yàlla amul benn mbindeef moo xamante ne moo ko wër di ko peeg déedéet tumma stawa ala arsh te loolu bokk na ci pas-pas ahlu sunna wal jamaa yi borom bi tabaraka wa taala nekkul ne dafa ne ci place bu ne déedéet yàlla jëmmam moo tiim mbindeef yépp ndax ma nga tiim arash ma tiim mbindeef yépp yàlla nekkul ci place bu ne ci jëmmam waaye xam-xamam nag moom mi ngi ci place bu ne yàlla amul place bu ñuy defee dara te lu dul ne xam na lañ fay def lu mu doon naka noonu ab gisam loo ma lu waay mën a def ci place bu mën a doon ci àdduna ak ci asamaan ak suuf ak fu mën a doon yàlla subhanahu wa taala ma ngi ca teg bëtam gis na ko naka noonu lu ñuy wax lépp lu ñuy wax ñu koy dégg borom bi tabaraka wa taala dina ko dégg ak fu mu mën a ne kon xam-xamam ak jëfam ak li nga xamante ne moom mooy ab gisam akub déggam loolu moom mi ngi fu ne waaye jëmmam nag moom yàlla moom moo wax ni moo tiim arash waaye nag jëmmam ñun xamuñu nu mu mel naka noonu na mu tiimee arash xamuñu nu mu ko tiimee waaye nag moo ko tiim moom ndax moo ko wax nee nañu ma nga tiim arash kon dañ koy gëm waaye waxuñu nan la tiimee arash ah ndax borom bi tabaraka wa taala mënuñoo xam ci moom lu mu ñu waxul wala lu mu waxul yonent bi yonent bi nekk ñu ko kon fañu fam fañ fam ñu yemloo ci xam-xamam fa mu yem ci xamal ñu mooy kan foofa lañ mën a yem ci xam ko moom borom bi tabaraka wa te fa mu yem doy na sëkk pour nit ki xam yàlla mën a sax ci di ko jaamu moom rek subhanahu wa taala moo tax mu ne thumma stawa ala arsh gannaaw ga mu tiim arash moom yàlla yughshi layla nahaar yàlla nee na mooy jël guddi dugal ko ci bëccëg mooy jël guddi yiir ko ci bëccëg bëccëg bi dem guddi gi ñëw yatlubuhu xafiifa nga gis ne bëccëg bi day topp guddi gi di ko dàq dàq bu gaaw nga xam ne guddi gi day ñëw bëccëg bi daal di ñëwaat dàq ko ba yegg bu becek bi ñëwee guddi gi ñëw di ko dàq ba yegg si guddi gi noonu lay soppeekoo guddi gi di dem becek di ñëw bëccëg di dem guddi di ñëw ku ci ne di dàq sa rom dàq bu gaaw dund gi di dem rek yow yow mi ko bis day ñëw yow it sa dund jeex ndax guddeeg bëccëg mooy ñaar yu yees yi nga xamante ne lu yees lu ne danañ ko màggatal comme na bu kat bawa waxee ca eh, ibnu durayd maqsurat ibnu durayd innal al jadidain ida mastawlaya ala jadidin adnayahu lil bila ñaar yu hi moy mooy gudek bëccëg ndax guddi gu ñew rek bis bu yes la guddi gu yes la bëccëg bu ñew bëccëg bu yes la motax mu tudde len ñaar yu yes yi bis bu ne dañuy yes mu ne ñaar yu yes yi bu fekkente ne maanaam nañ lu yes dañ koy yóbbu yóbbu fuñ ko yóbbee rek mooy mu màggat kon lu fi yees rek guddeeg bëccëg buñ la bàyyiwul léegi nga màggat kon moo tax mu yàlla ne yatlubuhu xafiisa guddi day topp ci ginnaaw bëccëg ci lu gaaw di ko sàkku ba jàpp ko jële ko fi bëccëg dem guddi ñëw bëccëg topp ca gannaawam ba jële ko fi bëccëg daal di ñëwaat guddi topp ca ginnaawam noonu lay dem noonu lay demee noonu lay demee ba ba àddunay tukki yooyu kon yàlla mooy ki ko bind yàlla mooy kiy def yooyu jëf kon yooyu mbindee fi borom bi la tey nit ki mën na cee xame yàlla mu xam ne kiy def lii te keneen mënu ko kudul moom te kenn mënul ne tey kan moo ñemee taxaw ne tey guddi du am tey man maay taxaw ne kan moo ñemee taxaw ne tey man maay taxaw ne guddi du am tey bëccëg bi mooy continuer bëccëg continuel pour bëccëg bi continuer ku ko ñeme kenn du ko ñeme ndax ndax loolu nekkul ci loxob kenn ku dul yàlla mbindeefu yàlla la yàllaa koy digal bëccëg bi dafay jóge guddi ñëw guddi jóge fi bëccëg ñëw loolu kaawteefu sunu boroom la yàlla moo bind kon asamaan ak suuf moo bind guddi ak bëccëg ci noonu muy doxe wa shamsa wal yàlla moo bind jant bi moo bind weer wi wan nujuuma musaxaraatin bi amri yàlla moo bind biddiw te biddiw yi yàlla da leen a tàggat ci ndigalam maanaam biddiw bu ci nekk ak la muy liggéey ak fa mu nekk te it am na loo xamante ne moom moo ko tax a jóg lu ko yàlla sant ca noona lay nekkee yooyu yépp mbindee fi sunu boroom la kon ala lahul xalqu wal amr yeewu leen day yàlla day mooy ki nga xamante ne mooy boroom bind moo bind lépp lépp yàllaa ko bind wal amru mbir yépp it yàllaa ko moom ci moom lay dellu moo xam mbir la moo xamante ne da koo digle pour ñu def ko ci sharia moo xam mbir la moo xamante ne da koo dogal ngir mu am ci àdduna bi lépp ci yàlla lay dellu moo tax al amru nawaan al amru shar'i mooy li yàlla digle ci sharia wal amru al kawni mooy li nga xam ne yàlla da koo digle ci aduna bi dogal ko ngir mu am lépp ci yàlla lay delu kon lépp ci loxom la nek way way kon ki mom dong mo yoyo jaamu kenen kudul mom ken kenn waru koo jaamu ndax deful jëf ju melni motax yàlla tek ci ni tabarakallahu rabbul alamin borom bi tabaraka wa taala tedna te moy borom minde fi yi nga xamantene ño bokku ci saan comme niñ koy waxe toujours al alamin manam alam mom moy mbindef yo xamantene ño bokk ben ciosan comme alamul ins alamul jin alam yo yep bo len bolé al alamin yalla ay sen borom kon lolu moy li nga xamantene moy bind bi ñu indi won tay di ñaan borom bi tabaraka taala mu defal ñu tawfiq defal len ko wa sallallahu wa sallama wa baarak على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين